Ndiaye Suluf. da nga xam kii yow. waaw xam naa sum karit la ala sulung, Suluf Ndiaye. waa El Hadj Suluf lan moo kew ba nga ànd ak le, bi loo defati. du suluxu de da nga jaawale. waa kii lu ko dal mu naan da ngaa jaawale dem leen nokk de. xool ko bu la koolee sa verre yi nga sol laa xam am na loo defati koo sàcc. hee monsieur la police kii kala sàcc laa la def dafa sàcc daw monsieur le policier nañu dem bul déglu jargoñ yi kan jargoñ bi. eh kifung fu jëm yow sedão, corta, corta, corta, corta o ritmo, corta, chapa, chapa, chapa. yow sank yaangi daw ma top la nga daw jigil sa bop tele bi ben auto laal la ba pare nga nan gisso monsieur le policier fi sama koñ la min nako avant may gumba dama fi don jaar exi nañu ba pare sama keur mo ngi nele wa baxna doxal bi fa mom so doye bama jappale directement brigade nga jëm assalamu alaykum madam da nga xam gorgi boy bima waxat gorgi de man sa moromu baay eh nopil Gorgi, da nga nopi wala ma yobula wa sama doom lu xew mbaa jam la gaare ma soxna si da nga xam ki waaw ki sama borom keur la sa borom keur gi dafa gumba wala <laughs> Madam eh bu ko xol tontu ma limala laaj waaw monsieur le policier kii dafa gumba kay du gis baxna comme dafa gumba suy demati yalwaan nam am ku ko yóbbu fi muy ne worul dafa bari auto waaw inshallah monsieur le policier tay ci ko yobbu mu muy ne dafa jangi motax tax ok maa ngi ñew dem def waay monsieur le policier non ndumbe yaay nandite barki yalla fagoon nan di nga yak del bi ni jaay du mako def waa yow tamit bi nga piisee laa jëli yow tamit nandite la yeah! policier bi dama ko lëfal dama ko teg dil dama xaar ba mu xool fële rek ma piis la patal benn bët bi Ndumbe xaw ma lay def nii doy na bàyyi wax ji yaa ma jox la nga dem jënd ginaar tey ginaar laay reeree kokoriko xew-xew amati na de xale yi xale yi seen livre les courses de suluxu ñëwati na tome 2 ak tome 3 bi génn de waaw te bii ba dafa ànd ak lu bees tak tak tak non seulement dañu yokk paasu livre yi ba 60 waaye dafa amaale ay question de compréhension pour améliorer intelligence xale yi ah livre suluxu bu bees bi am na solo de mani ku gaaw def commande doo am si livre yi de